asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu tàmbalee kàddu yi ci turu borom subhanahu wa taala ci bismillahi rahmani rahim ñoo ngi julli tey sëlmal ci sang sangi rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam di yeesalaat suñu cant jëmale ko ci borom bi ci anam yëpp alhamdulilahi ala kulli xaal waaye di gën a santaat suñu borom ci boole ci ñu boole ci njabootu suñu sang bi daje bi Cheikh Ahmadou Mbacké Maoul Hayaat ndax lii xew nii dama cee xalaat sama bokk wax ni su ma bokkul woon ci njabootam njàqare bu métti lay dëkk ndax doo xam fooy teg sa tànk doo xam foo jëm ni ko sëñ docteur waxee léegi sëriñ lu Mbay waaye am na nu lay dimbalee ci ak ngëm yàlla ak di wakkirlu ci moom ak di xam ne mooy dogal mooy def mooy dindi mooy roof mooy rocc loolee da lay gën a dëgëral ba lépp lu xew rek da nga koy delluwaat ci borom subhaanahu wa taala tey li ma fajar te dañuy faaxoo léegi-léegi nga xaw a soññee ci yoon de foofee laa waxe jaam ñi delluwaat ci seen borom te kenn ku nekk joxañaat sa borom tuubal sa borom sa diggante ak moom yeesalaat sa itteeg jëm ci moom boo noppee nag tàllal ko say loxo ñaan moom muy amal lépp ci coobare buñ ci jógee nag daal di jëfe li nga xam ni moom la way boroom xam-xam yi ci wàllu paj joxe ndax ñoom am njàng mu leer lañ yor tey loolee ñuy ragal nii ñu ngi koy gëstu ba joxe nañ ci ay tegtal luñ ci jox rek ñu xam ne loolee lañu jox tey alhamdulilah rabbil alamin suñu sang bi tamit ci tànk yooyu lañ nekk ginnaaw bi mu joxee si wàllu baatin li nga xam ne lool lañ war a jëfandikoo kon ñaar yëpp yor nañ yàlla nañ yàlla aar nag te ñoo musal li nga xam ne nag jëm na ci liñ doon waaj ci suñu mbokki taalibe yépp féete géejawaay muy diwaanu xiyaareel muridina fii xidmati xayril aalamina féete géejawaay yàlla fa dogaloon dañ doon waaj ak ngan démb yàlla dogal lii xew ci biir ma yëgaat ci lenn loo xam ni ci yoonu lislaam ci taarixu lislaam jullit buy dox jëm ci boroomam war naa ñaan yàlla sax loolu daw ndax xéewal la goo xam ne daloon na asxaabul kiraam ba ñu ràngoo ci ay maqaama yu kawe ki nga xam ne nag am na njort bu rafet ni ci seeni yoon lay dox tey léeg-léeg muy yëg lañ daan yëg mbaa muy mos ca lañ daan mos xew-xew bii man foofee la ma delloo ndax kat dañoo jëmoon ci bis bi am mbégte lool sawar ci lool macha allah mbokk taalibe yenu nañ ba xam naa si ñoo xam ne yenu nañ lu ñu attanu damay leen di xool léeg-léeg sax am kersa démb am na jëmm joo xam ni waaxuñ tàng la nekk di dem di ñëw waaye bi ndogal li jibee ma woo ko ne ko sëñ di joxe ne ndigal dañuy foom daanaka ba may wax ak moom sama yaram wax na naa génn ndax xam yi ci bis bi di téléphoné di joxe ay xalaat di sonn ba yegg lii xew waaye dafa maa delloo ci jamonoy saxaabatul kiram fa ñu tolloon suñu borom subhanahu wa taala wàcce aaya waxuma kàddu nit waaye kàddu yàlla ne leen yéen a ngi dox jëm màkka te di ngeen dugg waaw ñoom ñëpp xas loolu gëm ko ànd ak sang-sang yi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu dox ba jub màkka nar a dugg xew-xew am yàlla suñu borom subhaana taala waxaat leen ni leen dellu leen ba jëmmi jamono ngeen ñëwaat saxaaba yi am ci seen biir ñoo xam ne loolee diis na ci seen xol mel ni bu ñu amoon ndigal dañuy xëccoo dugg rasulaay salaam salaam jox leen ndigal waaye am si ñoo xam ne ndigal li diis na ci ñëw ba si suñu maam yi tedd yooyee wa soxnaam ci sedd soosee ne ko sa saxaaba yi te xam naa ci ñoom loo xam ni mbir mi diis na de waaye boo jëfee dañ lay dox rasulullah sallallahu alayhi wasallam daal di dem wattu looj gëléemam di leen seetaan ndigal loolee nag ci jëf laa waxuma kàddu biñ ko xoolee am ñu tàmbali ñoom it daan ni ndegam def na nañ def waaye yàlla dëggal na ay kàddoom waaw loolee jàll na ba jëmmi jamono ñu ñëwaat dugg màkk dugg goo xam ne fatxan mu bi nan man mii nag lii xew nii loole laa ci yëpp mujj naa sax ba fi ne ni forme bi dafa maa dolli mbég daa ni man dañoo cant ba raw gàddu yëpp yóbbu nañ ndax anam gi mu tëddaatee dafa maa dolli mbég de ñun doon nañu waaj am yéene yu sell ci jaamu suñu borom te jaar bi ci jëmm ji li ñu war lépp def nañ ko ci anam yëpp waaye nag loole li olof naan naax saay defu ko ndax yéen ji sellee rek yàlla nangu na te jëf ji tàbbi na ndax lañ doon waaj am na ci loo xam ne ci fii am na ay mbokk taal yoo xam teg ci seen bët te ñañ ci am yéene itam foofe la sama xol gën a seddee bu ñu toogoon ca bis ba xéwloo ko ñu euh, ñun ñi wa lu baax lay doon lu rafet lay doon lu sedd xol lay doon waaye am nag ñu ñu ko gën a ittewoo fuuf nag muy suñu njaboot gee xam ngeen ñi may wax nekk fa di jàng alxuraanul karim suñu téere borom bi di jàng xaqida jëm ci seen borom waaye nag ñu leen di waajal ñu nekk ay soldaarul islaam te fa ñu nekk xam nañ ni wax fii moo ko gën a bakkane ci waxin jël ko kon jox leen ko dafa gën a yell foofu ñu amaat ñaari nga mujj naa man ba xew-xew bi daf ma doli ak cyant yalla ndax buñu don am ben ñaar la ñam waye fan la bayiko ko nattu boo nit ki dul woon bokk wa si njabotam dañuy sanni suñu ay loxo dal ni ah mbir mi dal yakuna na xamatuma melni reccu réccu da ci dal di dugg waye ëlbatiku ba bokku mu ëlbatiku dol liñu wat ak cyant ak deugal ak yeesaral laxasaay man fofé la waxé ñaan nak suñu borom subhanahu wa taala gën fe yàggal suñu sang bu tedd Cheikh Mbacké Mawal Khali ndax kat yoon yu ñu tek wax dëgg yalla bis ba may njëkk a ñëw di tàllal samay loxo jëmele ci di jaayante ak mom ngir jëmbal ko sama bop ginaaw ba ma jaxlé ci sama jëmi bop ngir ñaan ko mu taxawuma ci nimbal gi ko suñu borom bi nimbal mu dimbaliwaale walama ci ndax mënuluma sama bop dara waaye nag am lu ñu islam wax te tegtal ñu ko ma ragal ko te wóor na ma dinaa ci jaar am ci jaaxle ma am yaakaar ci moom mu dalal ci sama yaakaar bu ñu àndul woon ak moom ci anam yooyee xew-xew yu mel nii lu ñuy umpale lay doon te jaam buy dox ci kaw suuf te jaaroo ci étape yii bis penc ci ëllëg am na ñoo xam ne dinañ yëkkati seen loxo sant yow mën nga cee bokk ndax kat liggéey fay. jëf jël ñun nag alhamdulilah mi ngi liggéey liggéeyloo te pay bi am na ci ay tegtal yu leer yaa ko yàlla gën a dëgëral dëggal koo dëggal kon fa muy tëjee rek xanaa di wax ni lii fi dalit nañu delluwaat ci liggéey bi ñuy xaar ñun ñi njabootam ndax dañu war a tasaarloo ci kaw suuf gën a yaatal al islam wax nañ ko bu yàgg te bu ci kenn xeeb la jëf kenn ku nekk war na jàpp ni lii moom la war ndax bu ni àddina yàqoo ci ak ak caaxaan ak ngóosóor ak bàkkaar ci réew yi yi yi réew mi sax am na ci waaye réew yi sori yee ko ëppale ba nar ñu cee wàll ñoom bu ñu demee ba xew-xew bii tax ñu tëj seeni stade bay tëj seeni école ba barab bu caaxaan yépp jaaxle nañ ba koy tëj loolee am na lu muy tekki te li ko waral ni lislaam joxe woon na ci xalaatam bu yàgg mooy nit ki nay jëfandikoo lépp loo xam ni teey na te sell na xalaalam tayyibadan ñun dañoo digal ñu jëfandikoo bay bahiimatil an'aam muy juri kër yi ndax loolee mooy dugg ci jëmm jariñ ko waaye du ko lool ginnaaw bi nga ko lettalee dere ju njëkk ji génn yàpp wi daal di sell waaye liberté liberté liberté dem nañ ba kenn ku nekk bu la neexee toog ci rukk lekk kaña jëfandikoo bu la feebaree nga dem wàll say mbokki doomi aadama léeg-léeg Ebola boobee li ñu moo ko joxe lekk rabu àll te dañ cee gën a dund euh, junjub tàngi islam tere na ko dem naa sax bay wax naan borom xam-xam yi si islam te seen kàddu jot war nañoo gën a leeral ni lislaam li ñuy dal nii lépp indi na solution bi te xew-xew yi ñu joxañ ko mën koo leeral ngir même ki nekkul jullit sax aar ci boppam waaye gën a xam ne tamit subhaanahu wa mi amal àdduna te amal li ci biir àdduna nit ñi yem leen fii bu ñu yemoon foofee rek nokkul loolee nag yàlla ci yàlla dimbali te njabootu Cheikh Mbacke Mawal xayaat gii loolee gën a nekk seenu sas waaw ñu xam ne tasaare lislaam gën a leeral lislaam ginnaaw bi ñu ko dundee ba am ci ay jeexit yoo xam ne jafe na jaam bi dox ba jot ci waaye tawféex la boo ci jotee ñu gën a nag amaat ndimbal ci wàllu woowee ngir gën a dimbali waa àdduna ci zaahir ak ci baatin ñaan yàlla njaboot gi jël loolee wéyalaat ko ba sët yëg sëtaat yi gën koo wéyal ba mu daj àddina kap ba ilaa yawmi yàlla na suñu borom subhaanahu wa gën fee yàggal suñu sang bu jëm si Mbàkke Maawul gën koo aar te gën koo musal te gën koo taxaw bépp yéeneem ak i ak i mébétam jëm ci lislaam ak njaboot suñu borom gi ci kaw suuf yàlla ci yàlla defal ndam lu benn nit yàlla mësta am gën koo dëpp ay jumtukaay yoo xam ni moom lay jotee ci loolee ca anam ko yu gën a sell gën a mat te gën a rafet ci zaahir ak ci baatin maa ngi santaat nag bu baax sama bokk taalibe yi ma àndal muy diwaan way bi ñaan suñu borom bi gën ñoo taxaw ñeel bu baax te gën ñoo barkeel bu baax a baax baax baax noonu ma ko leeralee sant lañ fi fagu won ci walu wattay biski liñ ci jotta fagu indi nañ ko li nga xamni tamit dañ ko ci toftal nak muy barkelu bo xamni day nekk koom it indi nañ ko ni ma ngi koy dugal ko waa ci kees gi lolu duggaat ci liggey boobee gëna a bu baax suñu borom subhanahu wa taala wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf